aus billahi min satan bismillah ya rahman ya rahim rabbi bima yasram wala sayana xat fajaha bi jaayi afdali man lillahi xat lajaha hamdi li rabbin karimin la sarika lahu wa sadri al yawma nooran saati han malaha muhammadun salawatullahi fi abadin ali fi isbi ali fi kulli bi kala adon ilahi lasi amal mawaibuhu li jumlatil xalqi ma yaxtarun baraha naajeytuhu jàlla ahbaban wa karamani takrim haadin wa kulli min laqal baraha rahman abil jamil xalqi rahmata man yuxni an charri man quraanul qaraha xudhumatal mustafa an kulli mufsadatin waltarhamil xalqi yaa man jodum badaha yaa malikal mulki yaa man jalaan xawadin irham jami alwara yaa adin radaha maa hawtu maa xadnaha ful xalb min dararin bi jaay afdin man lillahi xad dajaha allahuma salli ala sayyidina barke sëriñ Tuubaa asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu bokki juliti bokki taalibe yi yéen waa kër Seexul Xadim Seexuna Ahmadu Bamba Xaadim Rasul bu ngeen gisee toogaay bu jekk bii ngeen xam ne jotoon ndigal ca jàmbaar ja cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa général kullu murid mi ñëpp ñu ñaanal yàlla Mbacké mu yàgg fi te wér ñëw nag ci rakam ji sëriñ cheikh Amadou Mbacké xalifa sëriñ Abdou Khadir Mbacké imam ñëw ci sëriñ cheikh Abdou Mbacké mi xalifa sëriñ Modou Mbacké moom cheikh Abdou Khadir mu baax ma waaye ñëw ci seen taalibi bii seen doom ji di jàmbaar lool di ñaayu xare kooku mooy kan soxna maam Fatim Mbacké moom bis nga xam ni yàgg na ko woote at mu jot mu wootal waajur mu sell wa sëñ Modou bis bis bi kañ lay doon le 28 décembre 2019 fan lay xewee fii ci Baxdaad loolaa na toog nag jot ndigal ci kilifa yu baax yooyu soxna Mame Fatou nag takkatoo ànd ak mbokk yi ànd ak taalibe yi waaye ànd ak càmmañam ku mbokk sëñ Modou rek ànd ak yow bis boobu nga xam ne ci la fàtte ko jàmbaar ja sëñ Modou Mbacké moom Abdou Khadir mi nga xam ni ku mu saana ñëw ca jàmbaar ja Abdou Khadir boo ko ndax diw baax na muy ndax mel ne Samas ah gars yi kooku la wooteel bis kañ lay doon le 28 décembre fa lay doon fii ci Baxdaad kon day mel ni kon mbokk yi dana nekk kàddu gu njëkk gi jébbal ko sëriñ Ismaïla Mbacke moom sëriñ Modou mooy woote ci kàddu soxna Maam Faati Mbacke mi nga xam fa tarakalaaw bàyyilu liggéey bi kenn dox rek ana waate kanam ñaareelu kàddu bi daan jox sëriñ Ahmed Mbacke moom sëriñ Sidi moom Cheikh Abdou Lahad moom Cheikh Abdou Khadir dina wax ci kàddu mboolem sëdi sëriñ Abdou Khadir yi bu noppee la jëm ci programme bi ak kaddu taalibe yi daan ko jébbal sëñ Moussa ci Baxdaad ahousu billahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wa inni u'iizuhaa bika wa suriyataha min alsheytaani irajim rabbi ausu bika min amasati shayatin rabbi an yaxdurun assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokki ñu ngi leen di nuyu ku ne sa tur ak si sa di jiital ci nuyo bi cheikh Mouhamadul Muntaxal Bachir di ko ñaanal lépp loo xam ne naal na ko liggéeyal sëñ Tuubaa mu am ko nam ko bëggee ànd koog taalibe sëñ Tuubaa yëpp xanaa di tënk di gàttal wax ji ci ndigalul sunu kilifa soxna Faati moom sëriñ Modou Abdoul Xadar di bàyyi faalub sëriñ Modou Abdoul Xadar jëlee ci ndigal sunu kilifa sunu yaakaar sunu jawriñ ci yoonu sëñ Touba muy Cheikh mu Muntaxal Bachir muy bisub bi nga xam ne ni bisub cant la bisub fàttaliku la bisub ñaan la mu tànn ko di ko amal at mu jot di ko defalal wajurum wu tedd wa sëriñ moom Cheikh Mamadul Moodu Abdul Xadar Mbakke yàlla na ko sunu booram li ay leer taax ci barkeem ak bépp jullit bu mu fa nekkal dañu yàgg koo def ñun njabootuk sëriñ Modou Abdoul Khadir gi ak taalibe yi euh, bis bi nag soxna si at mu jot la koy jàpp ren mu jàpp ko le vingt-huit décembre incha allah euh, jot ci ndigalul kilifaam sëriñ Cheikh Abdoul Khadir ak sëriñ Cheikh Mba Cheikh sëriñ Cheikh Abdou Mbacké moom sëriñ Modou Abdoul Khadir ak njabootuk sëñ Abdoul Khadir gépp rawatina njabootuk sëñ Modou gi boo leen xoolee jataay bi rek xam ne wane na lu mel noonu ndax kër sëñ Abdul Xaadir ñoo fi sa ñoo fi daje rawatina taalibe kër sëñ Abdul defee ko fii ci Baxdaad mi nga xam ne ni mooy pakkub sëriñ Abdul Xadar nga xam ne fépp foo xam ne ñi ngi fi sàkkoo ñaan ak tiyaaba yaakaar naa fii la gën a gaawee ndax fii ci suñu wet rek suñu koteel nday jor fii la eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkoon sëriñ Abdul Xadar kon nag bu ñu tënkee bisub ren bii soxna si jaglee ko ku mat a jagleel koo xam ne ku mat a cëraleel la muy cheikh ibrahima fall lamp babul muridin nga xam ne cheikh mahamadul faadal ca matam ga ak daraja ja ko yàlla jox ca la dajale woon mag ñu bëri li leen tànnaloo ku ne indi sab tànn mu ne jum ngeen ci tànn bi ki nga xam ne mooy buntub yoonu murit moom laay jox li ma war a jox tuddee ko lamp fall babul muridin kon booy tànn ba ñëwaat ci Cheikh Ibra dugg nga bunt bu am solo te it kuy woo ci Cheikh Ibra wala ngay woo waa kër Cheikh Ibra woo nga ñu mata woo waaye danañ la wuy ba nga xam ne Cheikh Ibra moo téye yoonu murit soxna si nag nee na it du fàtte ay mbokkam muy mbokki boppam ak mbokk yi nga xam ne ñoom la bokkal sëñ Tuubaa buñ ne mbokk yi mbokkal sëñ Tuubaa nag mën ngaa tudd euh, mbusoobe man ngaa tudd waa kër Serigne Touba yi boo ne kër Cheikh Mouhamadul Moustapha man ngaa daanoo ci Cheikh Mouhamadul Mourtada mu daal di tëj lépp ñu bañ a juum ci tudd yi ndax bisub Serigne Modou boo ko wootee ku ne daana si sawar a teew kon nag ñu ngi woo képp ku yaakaar Serigne Touba rawatina sëñ Modou amoon jëflante bu rafet bu mu amaloon ak yow wala nga sopp ko wala nga sopp sëñ Abdoul Khadar programme ba nag euh, ñu ngi ci woo. Euh, Euh, colonel Abdoulahi Fall ak soxnaam soxna soxna euh, ak soxnaam ca Sicap Foire soxna na Sam ak naasi madame Top euh, madame Top ca Maris ak soxna ñaaña Sall ak baayam ak sëriñ Amsatu Sall di ci woo sëriñ Saalihu Top ak soxnaam soxna Njamala Njaay ak aji biram Fall borom këram di ci woo it sëriñ xaadim Fall mi nga xam ne ni it ku ne xam na ko ci kër sëriñ euh, xarit la fi doom la fi di ci woo it sëriñ Fallou Gaye ak soxnaam di ci woo it sëriñ jiili Mbakke mi nga xam ne nii mi ngi fii ji dëkkub sëriñ Abdul Xaadir bi muy Baxdaad ak sëriñ Abdoulahat Mbakke ak mboolem njabootug sëriñ Mor Doj gi buñ tuddee sëriñ Mor Doj nag xam nañ ne mbokk la mooy maami soxna Fati euh, foofu it fàttewuñ fa kenn muy mag ndaw ñu ngi leen woo ci bisub sëriñ Modou Abdoul Khadir bi ak sëriñ Ibrahima Mbacke ak njabootug sëriñ Afia gépp di ci woo njabootug sëriñ Abdoul Khadir muy góor ak jigéen rawatina jigéen ñi bu ñuy woon ñu ngi ciy jiital soxna moomi ba ci soxna Aminata Lo euh, soxna si mi ngi ñaan nag képp koo xam ne ni ñëw nga ci jataay bi yàlla na suruñ suñ borom yokk say xéewal te bépp gàkk-gàkk wala jàngara boo amoon yàlla saafara ko bépp loo xam ne ni yaa ngi ko doon naal si sa àdduna muy xéewal yàlla defal na la ko ndax ku ne ko xam sëñ Modou Abdoul Xadar xam ne bisam ba moom buñ ci buñ ci ñëwee di ci addu di ci wax mooy euh, programme ba nii rek lay tëddee muy bu ñu defee bernde yi tisbaar ñu julli ba noppi def ay bernde bu tàkku saanee nag waxtaan wa moom sëñ Abdul Xaadir Dia moo koy def euh, sëriñ Xaadim Guèye dana fa jàngit ak sëñ Baara Mbàkke Sikorullah waaye nag ñi ngi waxtaanee ci dunduk sëñ Modou Abdul Xaadir li gën a am importance ci adduna li gën a am solo muy sëriñ Modou akuk taalibe ndax ku ne xamoon na ne sëñ moodu moom lenn rek moo ko amaloon solo ci àdduna muy dafa jaayoon lépp jënde ko ak taalibe kon bis booba nag képp koo xam ne namm nga daggaat sa yaram wala nga xeñtuwaat mbirum sëñ bi boo ñëwee bu ñu waxtaanee sëñ Modou yaakaar naa da fa jëlee ay leçon yoo xam ne ni mën nañ koo demaat ba déwén incha allah wa axiru daxwaana ani alhamdulilahi rabil alamin wasalaamu aleykum aousu billahi min asheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin al amin wa ala alihi wa wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi ddin amma baadu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di fas yéene yëkkati ay kàddu kàddu yu gàtt rek te tënku di ko yëkkati nag ci turu sëti Cheikh Abdoul Khadir yi kàddu yi ko tax a jóg mooy ñu woote képp koo xamante ni sëtoo na ci Cheikh Abdoul Khadir rek soxna Faty ki moom mi nga xamante ni mooy Baye Fallou Sëriñ Modou Abdoul Khadir mi ngi lay woo nga ñëw ànd ak moom ci bis bi nga xamante ni mi ngi koy defal waajuram mu tedd wi Sëriñ Modou moom Cheikh Abdoul Khadir nee na daal képp koo xamante ni sëtoo na ci Cheikh Abdoul Khadir muy góor muy jigéen muy mag muy muy ndaw ñu ngi leen ñaal nga ñëw ànd ak moom ci liggéey bi bis bi mi ngi war a nekk le 28 10 décembre ci weer wii ñu nekk ci le 28 waaye ñu ngi ci encouragé bu baax soxna Faty te di fas yéene ànd ak moom liggéeyal bi ndax kat lii mu def nii ñun ñëpp la ko daal defal ndax sëriñ Modou moom newoon na kenn ci. ci sëriñ Abdul Qadir liggéeyal na ko loo xamante ni ñëpp teg na ci seen seen bët kon bu soxna Faati wootee ngir di ko ñaanal kon képp koo xamante ni sëtoon na sëriñ Abdul Qadir rek war na ñëw ànd ko ak moom moo tax kon mi ngi woo mboolem képp koo xamante ni sëtoon na sëriñ Abdul Qadir rek mu ñëw ànd ko ak ñoom kàddu yi daal loolu rek moo ko taxoon a jóg muy kàddu yu gàtt maa ngi jéggalu bu baax ci kàddu yi may yëkkati ci samay kanamu kilifa asalaamaaleykum wa rahmatullah wa axiru daxwaana an rahim noo ngi sant yàlla suñu boroom tabaraka wa taala di julli ci yonent bi salallahu wa sallam di yeesalaat sunu taalib seexul xadim di ñaan seex abdu xaadir mbàkke yàlla yokk ay leeram ak taawam bu baax bi ñuy wooteel seex moodu mbàkkem seex abdu xaadir di yëkkati kàddu yoo xam ne dañ ko jëme ci bis bi nga xam ne moom la soxna Faati Mbàkke moom sëñ Moodu di taxawalal sëñ Moodu at mu ne fii ci Baxdaat euh, noo ngi jégglu ndax suñ kilifa yu tedd yi bi ñu waxee ba noppi lépp mat na waaye dañ ciy barkeelu rek ndax ndigal day wax ci kàddu taalibe yi sëriñ Moodu nag ku yomba wooteel la ndax melakaanam ak jikkoom ak jëfam ndax melakaan wa nga xam ne wu ñëpp taam la rek moom la meloon doon nit ku tedd ku sell koo xam ne fi nga xam ne fi la feeñe noone rek la dunde diggante Mbàkke ak bi ak Ndaam mat sëkk doon nit koo xam ne taxawaayam kenn mënu koo fàtte kon soxna Faati bu ko yëkkatalee bis day mel ni nun taalibe yi la ko defal soxna Faati nag nee na mi ngi ciy wooñ ñëpp bàyyiwut kenn yaatal na ko nem ko daan yaatale at mu ne day yokk li ko tàmbalee ci Baxdaad gi mu koy defee ak Touba ak Bustaan ak képp koo xam ne ab taalibe nga rek ñi ngi mi ngi lay woo ci bis bu tedd bi nga xam ne moom lay taxawalal sëñ Modou Mbacke moom Cheikh Abdou Khadir le 28 février ci at mi le 28 décembre ci at mi nekk loolu nag moo tax ñu yëkkati suñu kàddu ci turu taalibe yi di wax kàddu yoo xam ne yii nun ñëpp noo ko bokk waxandoo muy sant sañ Modou wa nun ñëpp la war mu tàmbalee ko ci njàng alxuraan jàng xasida ak salaatu àla bi ak lépp loo xam ne lu baax la rek ak bernde yi kon nag soxna Faty noo ngi koy ñaanal ab taxawaayam yàgg mu fan gudd loolu ànd ak wér ak jàmm ju sax te li muy liggéeyal sëñ Modou mu nangul ko ko te fulal ko ko te tàbbal ko ca ngërëm yi waa kilifaam yu tedd yi turandoom yu tedd yi soxna Fatimatu ak soxna Faty Dia moom Xaadimu Rasul kon nag ñooñu nga xam ne seen dara daraja yu tedd ya yàlla ko suñu borom yéegal ba lépp lu mu bëgg ci sëriñam bi waajuram bi mu ame ko nu mu ko bëggee ñun ñëpp nu fekkee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo ñëpp bu kenn manqué bis la boo xam ne bi ni ko sëñ Ismaïla waxee lépp lu waay bëgg ci lu baax boo ko ci ñaanee mbaa nga dagaan ko ci danga ko am ndax sëriñ moo du jëmm la joo xam ne taalibe la woon defoon boppam lim doone satub sëriñ Touba lam war a xam mu xam ko ba borom xam-xam yëpp maase ne ñi ëpp xam-xam ci sati sëriñ Touba yi ci la bokk noonu la liggéeyale sëriñam Cheikh Abdou Khadir waajuram ba am ngërëm ndax mag mu ko jege nee na ma fekke naa ba ko Cheikh Abdou Khadir di wàcce mu ne ko ngërëm loo xam ne ab jullit dana ko gërëm ab euh, lislaam dana ko gërëm am ju ab am nga ko ngërëm loo xam ne waajur dana ko gërëm doomam am nga ko ngërëm loo xam ne ab sëriñ dana ko gërëm taalibe it am nga ko jëmm jooja ne ko kon li nga doon wut mbàkke am nga ko mu ne ko loolu dama koo def fet li laxasaay rek gën a yokkuwaat pas-pasam pas-pas bu kawe boobu mu aman moo ko may li mu am lépp yàlla yàlla barkeelu njobootam li ko tàmbalee ci ki nga xam ne mooy jiite waa kër sëñ Modou ba ci kër ka ci gën a tànk ñoo ngi siyaare tey jéblu tey santaat bu baax baax a baax di ñaanu fekk ko at yu baree baree bari ñu ngi leen di sant leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërë ngeen jëf mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bis baa ngi noonu kañ lay doon la 28 fan lay doon fii ci Baxdaad kan moo ko woote Baye Fall Baye Fall na tey ñibbi woon na ci kër Cheikh Ibrahima Fall ren di fi da ko dara jaale jàmbaar ja Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina di ko yëgal ki xam moo toog jataay bi sëriñ Cheikh Njëmbu Fall ak njabootu maam Cheikh Fall gépp waaye bawul kenn bawul fenn bawul ñenn waaye di ko yëgal nag mboolem daayira yaaju ci biir kër Cheikh Abdou Khadir Mbacké rawatina fii ci Baxdaad ak daayira jili jili yi sama maam Faati mi ngi ko koy yëgal waaye xam ne di sama maam Faati duñ koy woote jóg takk la xasaay at mu jot mu ne mooy bàyyi faram sëñ Moodu dana ko wooteel bis taxawal ko yàgg na ko woote waaye wéetu ci de jataay bi fi mu toog nii sëñ Amadou moom sëriñ Moodu moom Cheikh Abdou Khadir mi ngi nii di càmmañam Jili Mbacké moom Cheikh Moustapha moom Cheikh Abdou feggoo kan sëriñ Bassirou Mbacké moom sëñ Moodu moom sëñ Abdou Khadir feggoo kan Cheikh Naala Mbacké moom sëñ Moodu moom sëñ Abdou Khadir ak sëñ Aman Mbacké moom sëñ Sidi moom sëñ Abdou Khadir soxna Fatou daal woote na woote fépp bawul fenn wootam ñëpp bawul kenn ak maam Thierno Mbacké moom sëñ Moodu Abdou Khadir yataay bi fa tarakal kenn mankiwul waaye magi taalibe yi ci Baxdaad ci njiital Baay Tuubaa Mbacké ak sëñ Mor Mbeng ñoom ak daayira yi nekk Baxdaad ak Nayde ak Polle ak allié ba keneen nga ak lu ko wër bustaan soxna maam Fatim Mbacké Baye Fall bawul kan bawul fan bawul ñenn ah programme bi nu mu tëddee nag xëy jàngal xoraan njàngum xasida berne salaatul nabi ba digg bëccëg tàkkusaan cérémonie waxtaan wi nag ku ko def Cheikh Abdou Khadir Dia dundu kan Cheikh Abdou Khadir Mbacké waaye da coono jàmbaar ja càmmañam di kenn ci moom di taalibeem allah ji ngan na mesara maxtaar ak kan sëriñ Mbacké ñang jàng ko xasida waaye guddi gi kan mooy fanaane guddi gi sëriñ Xaadim Mbay mi nga xam fa taarakalaaw diggante ma soxna maam Faati ñëpp xam na ko ci pas-pas akuk taalibe lépp moo ko lay taay kon daal soxna maam Faati Mbàkke mooy woote bis bi nga xam ni dajee fàttaliku waajuram ba sëriñ Muudu Mbàkke moom Cheikh Abdou Khadir waaye da ci woo ki xam ni fa taarakalaaw kuy téye micro ci Sénégal wala ci yoonu murit bàyyi ko xel kan la Alaaji Ablaye Mbay Peex ak waa Peex gépp soxna maam Faati di woo bi nga xam ne amul lu moom kooku sëriñ Moodu sëñ Modou mi nga xam ba Moussa na ñëw ci jàmbaar ja Cheikh Abdou Khadir boo ko diw baax na ndax mel na ni Modou Samas kooke lan wooteel bis kañ lay doon la 28 fan lay doon fii ci Baxdaad mbokk yi dama naan ku ci jëkk gën ku ci mujj gën wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Rafah ñëppay dañ agréé